ko ciy bagaat surtout waa nee na gërëm li ma yéen a tudd gërëm kooku ndox mu tolloo la wala itulaalu yan xaar yi ñu nëbee xalaat ku ñor ko fii nag kàddu yi ñoo xam ne ne la woon nit ki bis war na la waaye kenn du ko am. nee na mu des jàppal ci liggéey suñu borom nee na saa borom nag damaa gërëm gërëm loo xam ne jublu lay dina invité. ñëpp wóor na suñ tubaab nee na saa borom sànni ma mel ni jant raxamaani raxama raxam xabada man saa wóor ko xaddu ni fan xabada yàlla jox ko ma di ma sant shakartani ayna jami jundika yaa xayra jaari xamnakasto indaka moo tax ma wax ko jaweyoon ni ko thank you sukkuran merci ak jaaraama jukkum jëla ki ñu te nee leen neew boolem xeeti taf yi suñ tubaab ku ku ku ku ñuy sant keneen te jaar leen suñ tubaab nañ jox lépp sëriñ bi nañ jox lépp sëriñ bi lépp suñ tubaab moom ginnaaw nag suñ tubaab nee nañ ñii gërëm nañ ko ñi baax ñëpp gërëm nañ ko benn suñu borom gërëm ko keneen ko ko woon ginnaaw yi suñ tubaab nee na loolu xullu ko man lam yakun anniya yarda fal karim radiya anniya rek dañ lay seere képp ku ma woon ginnaaw it lii ma am rek doy na ma Cheikh Xadim da doy de sëkk na kon ginnaaw Sëñ Tuubaa nag sa sama tàngi dong la doon li may faral di wax ku yàlla def ma nga bañ Sëñ Tuubaa booy boo nga jox air ba ci armée bi ak Sëñ Saali waaw ku yàlla def ma nga bañ Sëñ Tuubaa moom booy boo ngay joxe RW ca Arménie ndax bañ Sëriñ Tuubaa rek doy na feebar. biñ leen bañ Sëriñ Tuubaa doy na feebar fi ne am na feebar boo xam ne ñu bëri daawuñu ko dégg. muy cancer waaye léegi daa bëri ñëpp ci ñun dal nag moo ñu bañ Sëñ Tuubaa parce que boo bañee Sëñ Tuubaa doo ko xam nga li gën a dansé mooy boo bañee Sëñ Tuubaa doo ko doo ko ñemee génne ndax ku gisee moom dañ lay dañ lay reyoo léegi nag denc ko boo koy denc sa xol muy màgg mooy dem bu jural la cancer bindee te yii yi may faral di wax c'est que boo bañee Sëñ Tuubaa bi ne xolam doo ko am loo xorom loo wax lu mu xorom xorom kenn rek sa xorom la Sëñ Tuubaa di sax bind jataay boo jógee dañuy jóg dem bala bindee bi boo bañee Sëñ Tuubaa def ne rek kenn laay jot yooyu moom war ko Sëñ Tuubaa lekk bu neex it doo ko def xam nga sëñ Moussa Ka ak sëñ Bay Jax ne dañoo di ay way kenn kenn ko àndul ak moom dara la dul moom yàlla bëggul moom ku dëdd Bamba kenn des ni ko ko àndul ak moom dama dëkk mbuum tey mbuumu ci mbuum tey ñeek Bamba moo tax koo def Sëñ Tuubaa mbuum rek ginaar yeeg yu baax yooyu moom def ca loolu tax nag boo bëggee nañ ci wàll boo sànnee da ngay mooy boo yéegee da ngay daan ku la toon jëlee bi ma teew koo toon du ma koo lekk mu bañ teew doo yor la ñu léeg-léeg sax promotion am message bi boo koy recevoir day fekk mu jeexee boo jëlee doom tous barki seen seen commencé ba ngay indi jaay moom ca muñ la jaay nga tooy sa biir di métti ñu yóbbu la hôpital garab buñ la bindal pharmacie boo dem lay tëj suñ tubaab ko waxee xulóobu man lam yuhibbu ni alaama seen wala ilaa xona maaraamu pharmacie boo mën di dem day tëj nga laajte sax pharmacie waaye garde kenn kenn la ko wax. nga mujj nag ñu la jéem a xetil dugal la fa la opéré rek ku da nga dem sama